Si Goudi en la bois, de 25 bouts, devrait marquer disparition qui dit maman et son nom. Maman et son nom, vous devez devrait n'être que ben relibre qui gagne par 15 ans.

léegi nak biñu ñëwé sen seen parents ñëw la police man ma ngi tok fi ak samay mbokk ak samay ñooñ parce que je savais que y avait une opération bu police di def derrière bi ma yéegee xool ma gis né ce n'est plus une opération ordinaire mais dafa am ben lieu de crime bu ñu établir fii nii man xamné nak bu ambulance taxawé ay nit di xuus si ndox di xol

pour que nous trouvions trouver exactement la maman Aïcha dans le qui maman yoon nag wala leeral mbir mi nan la demee mooy génn àdduna mama Aïcha Ndong ñi dee bi daal li mu wane doy na waar moo tax it copinam bi nga xam ne fukki at ak juróom benn la am defeere nañ ko lee ngir meurtre ku rey ni tey ci talaata ji dana xam ëllëg mama Aïcha Ndong mi kon ca biti ba la jóge woon ak copinam ba mujj gi ñu gis néewam ci biir canal ba image su caméra de surveillance day am na lu mu wane Famara Ndong di papay xale bi dee nee na man li ma wóor ba wóor booy ko ca biir canal ba sécurité psychique bi nag nekk na loo Vous pouvez vous abonner à travers le commentaire. Boulen avant nous, n'en cette vidéo. Fait qu'il apprécie, n'gel la se sauve bene pouce bleu. Succès nous y wanta vos benen, des